rapport ak reddition des comptes loolu boo xoolee même le premier ministre ak le président de la république dañoo exigeant ci loolu loolu dañ ciy dem jusqu'au bout du bout de leur logique parce que c'est une exigence nationale parce que le régime précédent le régime sortant ñëpp xam nañu ci régime bi fonctionnement régime bi depuis 2012 ba keroog ñuy wàcc ay scandale yu bëree bëri épisodique la ñu nemmeeku ci yenn boîte yi donc kon jàpp naa ne aujourd'hui la Salma wax tamit am na solo parce que en réalité mën naa gé jàpp ni la motiver génnam tamit aussi mooy la ca Salma wax en réalité loolu la parce que avant Salma di tudd loolu gisuñu ko mu def benn réaction kon moom opération bi mu lancé en réalité moom moo def effet moo waral yenn génn yi mais loolu amul njëriñ xam nga li am njariñ mooy ku ci justice war a interpeller dana la interpeller te jàpp naa ni autorité yi volonté boobu fermeté boobu am nañ ko par rapport ak matière boobu parce que Ousmane Sonko c'est pas la première fois mu génn di ko wax am na nag ñoo xam bi mu ko waxee automatiquement sax tiit nañ ba di def ay post ku si mel ni Mansour Faye génn automatiquement si loo xamante ni daawuñu ko tàmm si moom mm-hmm. te en bu daan wax sax da nga daan gis ci waxam daf si daan fësal Ousmane Sonko mm-hmm. mais cette fois ci gisuleen fenn fu mentionné Ousmane Sonko ce mm-hmm. monsieur nga xam ni kon nee na sax waa daa ragal rab yi nekk assemblée. waaw rab yi mu ragal ñu ngi ci kanam. lañ doon assum assumer wu assumer tuñ ko. tout cas daal am wàll ci reddition des des des des des des des des reddition des comptes mhm. di nga ko layoo ak yoon. d'accord kon jàpp naa ne loolu moom mooy eh, li ma mënoon wax ci loolu quoi. c'est ça Maty yow it ban jàngat ngay def diggante demam république tchèque ak dellusiwaat fii ci réew mi. ah en tout cas daal gis nañ mu def vidéo ak benn militant ne mu ngi nii ci biir këram te doon ne dafa dem république tchèque mhm. lan moo nu woon ni foofu mu nekk biir këram. Mhm. gisuma ko la aussi. ah gisuma ko mu dox ci mbedd yi daal xam nga nag euh, waa APR euh, bëri na si ñoom ñoo xam ne ils sont forts manipulation. dara rien ne nous dit que ni il est au Sénégal actuellement ndax émission bi lundi la te lu fi ak lundi dafa des. dafa xaj na lu ne xaj na fi. secondo aussi peut-être s'il a quelque chose de particulier ndax euh, déclaration incendiaire yi Salma yóbbu vaar léegi nii. des gens ont dit moins grave que moom li mu topp wax nii ñu jiiñ leen appel à l'insurrection wala atteinte à la sureté de l'État wala ay provocation directe à un attroupement armé ndax si ay déclaration kese de ñu tëj leen mandat de dépôt pendant des mois et des mois avant am amnistie bi di ñëw wala ñu jékki-jékki dafa leen main levée donc euh, man Souleymane Ndiaye moom euh, moom ak euh, ñu mel ni moom. Ahmed Suzanne Camara anam ah moom. ma nga nungu seen. ah moo waxoon nañu nañu dem euh, taal kër Sonko. voilà te que boobu ñi fi nekkoon. dañoo jël dëkk bi def ko lido. Mhm. ñi bokk ci ñoom. di def ay tojaange. di wax musiba. defuñu ko. ñeneen ñi bokkul ci ñoom. ab oustaz Assane Seck. waaraate kat wax dara. ñu ne ko ñu mhm. kaso bi tëj ko. dama ne la. Mhm. actuellement nii ak amnistie bi. lu ci waay waxoon. wala lu ci waay defoon. ci diir boobu kenn mën la cee topp dara la cee topp dara parce que waaw. pénal moo tax je parle pénalement responsable. d'accord waaw ndax eh, actuellement ni moom quoi qu'on puisse dire tant que loi d'amnistie bi tëbul. tout ce qui est délit politique moom wala tout ce qui est en rapport avec les événements qui se sont succédés de 2021 à 2024 moom. doo doo leen ci mën topp ci dara. Euh, donc euh, voilà mais une chose est sûre ah. SAPCO moom waxuma la audit rek waaye plage yooyu yaa ngi wax suuf si mais plage yi nga xam xam nga man nag ñoom ñoo bokkoon nekk immeuble fële ne Ouest Nord Foire après yëngu leen juste. Hmm. foofu leen seen seen nekkoon temps bi fa kii di nekk DG Pape Malick Ndour. Hmm. après si la Souleymane Ndiaye mii ñëw ah moom Pape Malick ñu yóbbu ko la ne donc mais. liggéey bi yow mun yow lu concret maanaam loo mën a yëkkati teg sa loxo ne lii sab koo def na ko munoo koo gis donc loolu moom jarul sax Salma mhm. di wax bay nekk fii nii ñu naan la moom la ak du moom mhm. xam nga lii naan actuellement nii ñoom heure bi daaw ñoom la woon waaye heure bi ren ñun la. te bul sonal sa bopp gis nga reddition des comptes yi xam nga léegi rek nee na à partir de lundi lay commencé. am na ko commencé tiit mu ba man bi ma ko gëjee dégg mu wax sax xam ban 1900 la mais en moins de 24 heures def na ñaari publication sur Facebook. te naan ay maa ngi valer entre di naviguer entre la nord ak le sud. waaye bëgg bëgg a génn dëkk bi taxut a génn dëkk bi di Mansour Faye bëgg génn dëkk bi taxut génn dëkk bi ma ay maa ngi bërëb sàng maa ngi bërëb sàng bërëb yooyu nga mën a yem waaw parce que dem na fi bon temps yi passé demoon na fi euh, ambassade Allemagne doon uti visa nga rek mbir yi moom saa yi fu mu toll nii moom toog xaar rek day mel ni comme ñu pikiiru taqar naa se mais toog xaar rek. d'accord ku ku ku jàpp ni daal tu n'as rien à te reprocher moom. jarul nekk fii di wax ji wax ji di bëri jarul di nekk fii nii di naan man laag du man di naan bon actuellement nii moom. nan xaar rek milliards yi moom ku bëgg a sa bopp sutura rek ba a weer sa bopp demal nga delloo ko ndax fii ni ku nekk xam nga loo def. Mhm, ça c'est Euh, ñu xaarandi lundi en attendant ñu ñëw ci euh, beneen ponk bi seulement ci euh, mise au point muy déclaration de politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ni diggante le 11 ak le 13 nit ñi xamuñu à quelle date se fier réellement. waa kenn xamul à quelle date se fier réellement mais ma xaw a daane tuuti rek parce que en réalité am na ñoo xamante ne du ñooy naan te en fait ay ngaaka lañ. bu ñu la déggee ngay wax ma ne comme je le répète xaw ma ko personnellement mais journaliste laa damay def samay mm-hmm. gëstu damay def sama ay saytu. Mm-hmm. donc man day baax par exemple yow sooy wax damay mm-hmm. wax maman bu tay bi comparé ko ak maman bu débb bi. est que c'est la même personne est-ce que propos mi mën naa ko jël en compte yooyu yëpp dafay bokk ci li nga xamante ni dañ ciy bàyyi xel te sab ko boobu ngeen di wax man maa ngi ci. te dinaa ci dikkaat. après parce que loolu dafa ñeel alalu askan bi ne ñeel xaalisu askan bi di ci interpeller le nouveau DG mhm. euh, Serigne euh, Serigne Mouhamadou Serigne Boub je pense mhm. ah waaw noonu la tudd donc euh, ñu ngi koy interpeller bu baax a baax mu def attention bu baax a baax bàyyi xel bu baax mhm. yenn vautours yi nga xamante ne xëy na ñu ngi foofu parce que mënoo bëgg une chose et son contraire mënoo bañ projet Pastef ba pare bëgg moomu réussir donc ñu ko ci interpeller di ko bàyyi loolu projet rek ku de la petite côte. Mhm. su Abdou Diouf lañ ko créé woon. Mhm. mooy côté Saly Somone et bëri na suuf yu bëri yoo xam ne am na fa yu fa am. mais man boo dégloo Sonko keroog barki dem bi muy wax dafa ne ñoo ngi def liggéey bu la mhm. ba nga xam ne dañu am lu leer bu buñ ko tegee ci table bi. kenn du am naatable c'est ça. kenn du am naatable. mais pour man euh, par principe. ku ci sàcc alalu réew mi même mbuudu gooto xay mbuudu gooto na ko génnee parce que yenn pour man damaa jàpp ni yëfu dëmm la. moment bi nga xam ne dañuy toog lalu hôpitaux yi am jafe-jafe soo ñëwee Pikine nga ñëw mu wan la maternité boo xam ni ndaw si su wasinee. Hmm. duñ ko fa mën a téye en observation. parce que hmm. amuñu fi leen dugal. c'est donc alalu réew nañ ko sàmm mais même ci droit. Hmm. ci droit am na nooy defee sa procédure boo moytul mën nga salfaañe waa ji ci ay procédure su amee ay avocats yoo xam ne am nañ procédure ëllëg nga may ko bunt bu mu rëcc moo tax li ngay def def ko nga jël toutes les garanties nécessaires mm-hmm. l'État am na ay service de contrôle mm-hmm. je rappelle que dossiers yi ñu fiy wax nii yëpp Sonko ak Diomaye mm-hmm. ku leen tudd tooñ leen parce que Macky Sall moom moo fi génnee yabal cour de comptes six mois avant les élections ba nit ñi dañ na la waa Macky Sall lu ko dal sax mu yabal cour de comptes six mois avant les élections rapport IG e yi ñu wax yëpp yu wees la kon ñii bu ñu ñëwee ñu teg rapport yooyu bu kenn ne. c'est ça ñoom ñoo def enquête yooyu. mais par contre par contre mhm. am na loo xamante ni ñi nekk ci état ñoom la ñu dénk ñoom ñoo war a doxal. jox nañ leen tous les moyens. Mhm. jox nañ leen tous les moyens pour que ñoom ñu traqué képp koo xam ne jël nga alal réew. man ci ci ci ci. merci bi et dinañ ci ñëw dinaa la wax sama xalaat. ci li nga xam ne mooy waajul wàllum sàcc geeg wàllum tong tong bi. d'accord incha allah léegi am na ku am na ku nekk ci commentaire yi saaga jéggal jéggal naa ko. Ah. non xaaral rek ah, yow xanaa tuloo. Eh, non la tudd. Ah, jéggal naa ko. waaw man góor bu jàkkaarloog man saaga ma. Mm. góor góor du jàkkaarloog man di ma saaga. kenn du ma xool ci bët di ma saaga. parce que parce que du ma ragal. ñi ma xam dëgg xeex dama koy ndékkee matin midi soir. Mm-hmm. man bu ma nekkee ragal. bi ñeen ñi di dem di làqatu seen taatu jabar non bi ñenn ñi di dem di làqatu seen taatu jabar man damaa toog di défier tout un régime. quand les sénégalais ñenn ñi nekk ay poltron ñenn ñi dem di wut ay.